yow daal yow yaa fa xam. Ah, dama ne ma naari ma naari waa bu wutal lu baax rek. ma ne xo xool leen kër gaa ngi. fii lii nga ma laajoon mu ngi nii xool leen. yaa wut fii. ah ma ko mooy bi bi bu bu ross. nii ah mu ngi nii. ah déedéet mu ngi nii gis ko. ah kooku maa ngi nii. fu ñu dëkk ñun ci kaw wàllu suuf. ma ne jox nañu lépp. ama dispos mu ni dëkkal ci kaw ah, mbaa nga ci suuf loolu dëgg waaw bu leen demee noonu noonu yéen nag ah, dem bi ah, ñun ñëpp dañoo mën a àndandoo ñun ñëpp nag wax nga dëgg wax nga dëgg tey ko def nag yéen cuune na day am sutura waaye nag yow waaw léegi xam waaw wax nga dëgg waaw léegi noonu ngeen ko gisee ah mel ni kuy traversé rek bi demal waay takkal sa fit bi dem demal rek tabul gestu jeex na na. fi mu wut day def fi mu fi mu wut nii. ah biti bi de rafet na ko ma biir gi. xanaa ñemewul ñu dox suñu ange ba pare muy kii de. xool ko mu mel ni ku sax tuub nii mu mel ni ku ko. demal demal demal demal lool. demal demal demal baax demal. ba moom mu gën a ngemboo glace. daal li ñu doon rek ñoom daa wond xoom ñu wax mu naan ngeen taraxlaay ma woo. dugg na dugg na saa bañ ko de. demal demal demal laa ko bëggee. dox rek dox ca jom mën sa jom. yéen li li ma di baax na mbaa produit bi. yow ku la wax loolu. ah. yow ma dama ne la woon nga jënd micro ak macro loolu laa la waxoon nga jënd. yow sax fan nga jëndee. bitig bi ma yebal laa dem. ah yow de pourtant jàmbaar nga de man de macaroni laa foogoon ma demoon de macaroni laa lay jëndee. <laughs> <laughs> sama kaani ga da doon lax. dina lax kay dafa manqué aliment. Ah, man dama jeex xam lu ma jeex. Ah. mais nag aliment bi soo ko commencé. da koo war di alimenté. te alimenté wu leen ko te bu commencé am doom da ngay yokk doos bi. ah looloo tax kay yow xanaa formation bu leen seen bopp. waaw mais yow léeg di jaar. xam nga di xool waaw di ñu seet ba xam ma seen mag. di ñu surveillé loolu kenn seen mag di woo ko daa <laughs> yaay suñu mag. suñu jëkkër yi. Hmm. nañ leen sant gërëm leen. ndax dañoo baax diñ jàppale. ndax xaalis bii ñuy bloqué. suñ suñ ko bloqué ba keroog bañ koy débloqué dinañ ñun ñëpp kenn ku si dina maakaan ku mu dëkk du dëgg ah? ah ñun nag ñu leen di jàppale ci micro jardinage bi ah, ci dugg mi ci kër gi ah, ah loolu da cee baax te nañu góorgóorlu waaye nag i faut ñu teg deux cent mille ah waaw ay deux cent mille yooyu nañu cotisé moom ah ah loolu fu ñu koy jëlee ñu ngi bloqué fu ñu koy jëlee ñu ku ne fukk rek ngay lijjanti fukk fukk deux cent mille deux wala ku ne deux cent mille benn 200000 benn 200000 ñun ñeent. waaw ku nekk fukk ku nekk 50 rek ngay waaw te te ñu koo def 25 ñu def waaw ah, a nga jënd ba ñu jënd doo stocké ñu jënd na. Oh. Hmm? am rido. waaw balaa rido. waaw nañ ko félicité. waaw kër gi hmm. kii xam nga ni nga dugg ci duus bi. waaw xëppoo ndox. xëeñ parfum bu neex. ni dër ci mat la bi. xale bu baax tiim la. Ah. Oh. nga may ko sa yaram. bala ñu laa mënoote. nga maye sa yaram. daal di jug sa yàq. joxe sa sa yàq. c'est bien. rien à dire. merci beaucoup sa mission moom accompli nga ko. kër gi wéet na. Mm-hmm. néeg yi yaatu na. seet na. merci loolu sax man li ma ci gën a neex. waaw mooy koñ bi tamit selew la def. waaw selew la def. waaw euh, bi ci des mooy baax. waaw dama lay délégué. waaw. sa xaritu menuisier bi. waaw waaw waaw Pape ma benn pancarte. waaw ñu tafal ma fii. waaw villa 145. villa 145. 145. villa ci suuf 145. waaw ngeen taf ko fii. Ah, ah, waaw mais ñu xam ne ni dëkk na fi. famille occupé na fi. non numéro bi laa bëgg a faram. 145 man maa xam lu tax. non moom laa bëgg a faram pàcce ko. non du jotagul. bon ginnaaw léegi. man maa toppatoo kër gi. waaw villa bi maa ko toppatoo. waaw euh, benn chambre moo ci am douche intérieure. waaw. comme que maa ko réglé damaa bëggoon chambre boobu bien douche intérieur bi ma féete. waaw waaw bul àggali man ma soxla ko man. bul àggali. ah yéen sama yi nag yéen it. Hmm. man maa leen gën a soxla douche nag. Hmm. Hmm. man xam nga damay soxla ndox saa su ne. ku dul soxla ndox. ah yéen ñett ñëpp a te samay gel. ten déedéet déedéet xoolal xoolal xoolal jël jël jël douche beeg njàmbe yi jël bàyyi yooyu waay ma douche. waay bàyyi yooyu waay jël jël yow douche intérieur bi c'est pour bu la moi c'est pour yow sax bu la nekk jërëjëf beneen liggéey na nga jël caabi nga multiplier ko waaw ku nekk ak bu kenn déranger kenn bu kenn fëgg néegu kenn dëgg la ku nekk ak sa néeg ak say bagage jay euh, ku njëkkoon a génn ku njëkkoon génn ku njëkkoon a dugg ku njëkkoon a dugg maa njëkkoon waaye nag génn na bu njëkkoon dugg njëkk a génn ah, xoolal nag xoolal nag waaw ndaanaan rek lor rek nag daman lor ñeer rek mu waaye fii fii baax na de. demal demal baax ba demal ba demal kër gi baax na. lor ñaar rek. lor ñaar rek. waaw doucement doucement acca acca acca rek acca. Thank you.